Ablaye Wade fan la ne woon fan la Ablaye Wade ne woon réew mi tàkk ci kanamam fan la ne woon ba mu ne mu ne ba bu dee France na bind lettre yo ci internet bi ñëpp gis ko Abdoulaye du Diouf fan la nekkoon France la ne na bind lettre sànni ci net bi mu wàcc Sénégal ñëpp liir ko ne ah du Diouf de àndut ci lii Macky Sall di def ah Ablaye Wade de moom it def na lettre àndut ci àndut ci lii lii Macky Sall di def Nous ñu ne xum sommes ne xum naa yu ay nous. la toog ne est devant la porte d'être gagné. loolu ils le savent tous loolu moo tax ñu pour le le le le le le camp de le camp de looloo tax ñu génn ab Macky Sall la leen tax a jóg moom lañ bëgg a sauver lank leen loolu bu leen dajee amul ndajee nañu lank ndajee wuñu fenn jalaguñu Macky Sall ku jalagoog moom da da ci fen nga dëkk Macky Sall ku jalekoog moom naa fekk nga ku jalekoog moom ket nga ku jalekoog moom doo waxu dëkkat wala waxkatu dëgg ku jalekoog moom bëgguloo Sénégal bëgguloo intérêt Sénégal bëgguloo intérêt naskan wi askan wi askan wi nag képp ku ko bëgg da nga xam ne Macky Sall mi nekkul ci dëgg nekkul demul bay jege dëgg xamul luy dëgg fen ak ak toppale ak naafiq goog wurit ci la dëkk fa ba mu tàmbalee ba fii mu ne ci war askan wi la ne kon nag nañu lànk loolu bu leen faale amul gisee amul waxtaan déedéet lan mooy waxtaan wi libérer les détenus six cent personnes six cent personnes yi ñu tëj nañ leen bàyyi man nii nañ ma bàyyi amul amul amul amul amul libér amul libération con amul libér amul amul liberté conditionnelle amul nañ ma libéré totalement xam ne man defuma dara bàyyi sama nit ñi xam ne ñoom defuñu dara lii d'accord naa su ñu ko defee suñu ko defee ñu ba noppi ñu dem ci élection yi lii laa wax man monsieur Ousmane Sonko Ousmane man mii bàyyi Cheikh Sey avocat Ousmane Sonko man mi sa avocat lii laa bëgg nga def ko lañu la libéré sans condition libéré sa détenu 600, 600 personnes sans condition dem ci élection yi sans condition Li mom la lay wax nga na ko nangu bu nangu leneen lu dul li buñu ko deful buñu ko nangu nayo bañ Macky Sall il est au terre il est à terre fi mu ne nii il est à terre xam nako tous ses compagnons xam nañu ne Macky Sall il est à terre mënatut a dem il ne peut plus fonctionner tous ses organes sont arrêtés, tout son travail est bloqué. Partout, parmi ces gens, par, parmi ces, parmi ses compagnons, mes compagnons télé. waaw sa France Télé, Ablaye Wadou, Abdou président Macron Ablaye Abdou Diouf les ci mu Télé ñoko ci duggal bam nañ ba ca bir légui abdul mom mom na nous. nous dematul jama Nous xamul fu mu jëmati mu ne léppam Nous, nanu nan taxaw résister résistons bu kenn gannaaw nañu résister on va résister jusqu'au à la fin nous donnons nous donnons nos vies pour la pour notre patrie c'est ça la vérité nous donnons nos vies pour la, pour notre patrie nous donnons nos vies pour nos pour pour, pour nos, nos petits-fils nos fils et nos petits-fils nañu taxaw ci kanam bu ñu dellu gannaaw benn yoon on on on est on est trop de proche la notre victoire il faut jamais reculer il faut jamais baisser les bras jamais de la vie allons allons allons nous devant focus nous 2024 lii mooy wax ji ku waxut lii waxut luy dëgg ku deful lii deful luy C'est sëriñ bu fi dëkk di négocier bu ko nangu. li sëriñ si war a wax nañu ki ñu war a waxal nañu wax ak moom Ousmane Sonko bul wax ak benn sëriñ sëriñ si ñoo la gën a xam ki ñu war a waxal dañ ko ñemewul parce que daf leen a daf leen a sol ci benn néeg tëj leen la mu la la fa mu jaar ak sëriñ si ba kenn te wax jëm ci moom moom ñoom xam nañu ko yow moom mi nga xam ne nag jaamuro bi yàlla nga nitu ku yàlla nga nit ku dëggu nga nit kuy def dëgg nga bu kenn ñëw ci yow benn sëriñ ñëw ci yow naan la dugg na fii génn na fii lankal loolu lankal loolu ba tëdd ca naaj wa bul fi wax benn sëriñ ba mu méttee danoo ba mu méttee ba ñu ba ñu métti ba ñu méttilee dañ ñoo ñaan ñu may leen dañ ñoo ñaan ñu may leen ñu jekku ñu ñu bàyyi bu te lijjantiwuñu suñu dara ñu dem ba jekkuwaat leen nañ bu ñu taxawee naan sëriñ si dañuy dem ñaani bu leen wuyu benn sëriñ lànk leen sëriñ si moomu ñu réew mi ay citoyen lañu comme nun noonu ni ñu dëkk ci réew mi noonu la ñu dëkk ci réew mi la ñu am ci réew mi loolu lan am ci réew mi na lànk leen bu leen wuyu benn sëriñ sëriñ si kañu war a waxal xam nañ ko bu ñu ñëw ci yow di la tuurug lëndëm yow defoo waxoo bañoo dëgg yow lu la waay woo ci dëgg nga nangu ko waaye doomi haram jooju doomi haram jooju nekkul ci dëgg nekkul ci kii fi mu taxaw du foofu ba pare ñu di ko seetaan parce que ko log log loggal waxoon naa ko danaa ko waxaat dañ leen sol ba ñu fees ñoom ñëpp CFA CFA baa ngi jëllaañoo ci seen kër yi CFA baa ngi jëllaañoo ci seen banque yi kenn ku nekk banque ma nga ne muut kenn ku nekk banque ma nga ne wax billahi wallahi wa ta'ala. ils vont regretter un jour viendra danañu ko rëcc ñom ñep. boo dem sëriñ Bo xane bi bii Macky Sall la nit euh, journaliste dañu dem ba dañu gëstu ba gënné ko Tek ko ci kaw tek ko ci penc bi ñep di leen dégg bu boba nag gàcce dana gàcce bu boba gàcce dana am Ciow dana jóg billahi gàcce dana danañ ko gis fuñ ko foogewut parce que lepp luy neub fi mu ne moy Macky Sall wàccagut waaye billaahi bis bu Macky Sall wàccee bu keroogee lépp luñ doon nëbbu da journaliste yi daan ko génne bépp bu buñ fa ger da nga feeñ bépp bu buñ fa jox ay milliards da nga feeñ bu dee sa doom da bu dee ko joxee sa doom dana feeñ buñ ko joxee sa buñ la buñ la ko joxee sa jarbaat dana feeñ suñu suñ la ko joxee sa bopp dana feeñ te bu boobaa gàcce di da ngeen am gàcce ci kanam seen taalibe yi taalibe yëpp dañ leen a respecté woon waaye léegi kenn respecté tu leen parce que li ngeen war a mel melu leen ni fi ngeen war a teg seen tànk tegu leen ko fa li ngeen war a mel melu leen yéen sëriñ si laa wax ñi nga xam ne dañoo ànd ak Macky Sall ci lii lu bon li muy doxal amatu leen benn crédibilité amatu leen ko crédibilité amatu leen ko ci fen parce que fi ngeen fi leen taalibe yi tegoon da ngeen faa jóge wàcc ko wàcc sab ànd nag ànd moo dem fekk fa borom da ànd bi ngeen newoon ñëpp fonk leen ñëpp respecté leen ñëpp teg leen fi ñu war a teg yéen a fa tegg seen bopp léegi ànd ak politique yu politiciens yu bon yu tekkiwu dara yi nga xam ne lekk dereti nit ñi rek lañu fi nekke sii si di muuti dereti nit ñi di fab xaalis bu aram bi di leen ko jox ngeen di lekk ay ger loolu moo tax léegi kenn faadeetu leen fi mu duutu leen fi wodd benn kilifa diine duutu fi wax lu saf benn kilifa diine duutu fi wax lu ñu def benn kilifa diine duutu fi bàyyiloo kenn mu bàyyi parce que yéen a ko def yéen a ko teg seen bopp lii yéen a walbati ko xeex seen bopp yéen yéen a geer seen bopp yéen kilifa diine yéen a geer seen bopp kenn geeru leen yéen a geer seen bopp yéen a bàyyi na ngeen meloon na ngeen waroon na mel yéen a ko yéen a ko mel sëñ Abdou si Dabakh Malick yal na yàlla yokk leer ma nga ca ba ma nga ca abar sàq ba fi mu ne ba fi mu ne tiyaaba yi dañ tiba ay tiyaabaam day yokk ndax di ñaa ngi koy guddi ak bëccëg ndax ci lu ci ndax taxaw bi mu taxawoon wan état bi gannaaw jàkk juboo ak ànd ak peuple bi sëñ Lat nonu sëñ Saliwu nonu Cheikh Mouhamadou Lamine bara nonu denga nyep euh, nyep Cheikh Ibrahima Niass nonu denga ko euh, euh ñep ñep ñu bax kep kuy kilifa gu bax rek da nga wonon gannaaw euh, pouvoir pouvoir kep serigne bo xane bi bëgg nga pouvoiru aduna bëgg nga am aduna am alakhirah da ngay won gannaaw pouvoiru aduna bi sëñ Tuubaa mo ne won bëpp serigne bo xane bi yaangi tok ci kep paaro bour na la leer ne ridiculiser nga sa bop ridiculiser nga sa bop yak nga sa bop ta sa sa daraja ko na ta amato amato dara ca yalla de nga mam ngeen nek fi doon sëti ñoo ñu ñoo ñu andando ak say say bu bon bi nga xane mom moom eh, da lay jënd ba paré bu ëlëgé mo lay wër ci net bi mbolam lu ngeen ak mom bay bo ngeen tokkol makissar bis bu wàccee bis bu wàccee ci ngor gi lepp lu ngeen mas a waxanteeg moom de internet bi dana ko génne te boba dana do gatché gu rëy ci yeen te bu boba du leen jar dara ci talibé yi talibé yi gokk nañ leen mer nañu talibé yi mer nañu ñeppal leen mere bu ñu wax ñi wax ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax ñi jëfé ko ak ñu ñàkk ko jëfé ci yam talibé yi mere nañ leen fañ leen tegoon fañ leen yaakaaron nekku leen fa ndax da ngeen and ak da ngeen and ak buri aduna yi ñuy duma nit ñi di leen yew di ray nit ñi di leen fetal ñuy daanu barki démb rek ñetti nit ñetti xale la ñu rey ñu ndaw ba tey kaddu ba tey adduwu leen ci ba tey ubbi leen seen gimiñ addu ci ngeen def ne lii rafet na ngeen def ne lii neex na ku leen wax ne leen ne yéen nit ñi ànd nañu ak yéen nax nañu leen ku leen ko wax fen na kenn àndatut ak yéen seen i wax kenn ga àndatut ak yéen parce que li parce que liñ leen gëmee woon gisatuñ ko ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآدي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 ورب الكعبة المصرفة وصرف القرآن دق رك مملاي وح تيالا دونغ تخ تلول تلاي دخ قد تلاي دخ بكر من الله سمان دجور بركي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجين جفو